candidat yi ñett lañ parce que cest il faut ñu xam mais il faut ñu wax sénégalais yi bi ci njëkk mooy ñu ñuy tuddee l'extrémiste les extrémistes la l'opposition kii ñi nga xam ni. ñooñu ñooñu extrémistes yi ñooñu. waaw waaw mooy. waaye yeewi waaw ñooñu mooy c'est les extrémistes. waaw loolu du wax doo leen tudd. mooy mooy ñooñu extrémistes yi. parce que dama lay expliquer rek je l'ai qualifié. non mais yeewi lañ tudd kay waxal yeewi. dama mhm. ci extrémité yi lañ bokk. c'est-à-dire des gens qui nit ñoo xam ni nanguwuñu gis nanguwuñu dégg problème lañ am ak benn nit di ko jéem a jaarale ci ay problème mu état ñooñu. dañuy ut ay maires yi pour taxaw ci maires yi xeex ki fi nekk pour ñetti at yi léegi comme que nag boo amee maire yi ci déggoowoo ak ki fi nekk waxuñu sax ngeen juboo de déggoo la ñu wax ngeen nangu ci charte yi ngeen di liggéey doo liggéey sa gox dara firnde bi mooy ñooñu am na ay maire yu ñu yoroon defuñu fi dara dara dara amul dara luñ mën a wax ni ko ñoom ñoo ko def léegi yow mas ngaa yor mairie yow munoo wax lan nga def ca mairie ba ba pare di yóotu beneen mairie bu na a mag. non mais am nañ ay bilan boo jëlee ku mel ni par exemple Barthélemy Diaz maire moo Sacré Cœur ñëpp xam nañ ne bi mbas mi duggee am na am jéego yu am solo yu mu fa def ñu ngi koy dégg ci yeneen ak yeneen. boo nee liggéey ñu dara tamit. xam nga tuddee leen extrémiste. xam nga xam nga xam nga xam nga kii kii ut mairie. Mhm. ba pare nii du ma liggéey ak ki fi nekk kooku bëggul liggéey li ñuy wax ni jarul liyaar jarul nëbb koñ jarul ki lu Sénégalais di gis ñii dañuy ut ay mairie. seen waa gox lañ bëgg a dajale tënk leen tegut yéeg seen kaw pour xeex seen waa gox nag jàpp naa ni bu fekkee ne que seen gox lañu bëgg wax dëgg yàlla duñ tànnum ñooñu parce que ki nga xam ne day yéeg sa kaw bopp pour xeex rek xalaatul lu la defar bu la woowee ni la kaay jàppale ma pour ma yéeg sa kaw bopp da ngay bañ ndax am nañ bilan wala balaa ngay wax waxi programme da ngay mm-hmm. yow li nga am ba pare donc bu ci njëkk ci candidat yi mooy boobu mooy ñi nga xam ni opposition lañ bokk utuñu ay mairie lu dul pour xeex ak ki fi nekk. non mais ba bala ngaa génn ci euh, candidature ñooñu nga nekk dafa am ku jiite mooy Barthélemy Diaz. nga war a jàkkaarloo ak moom. non mais nañ jàkkaarloo. du mais boo ko boo tegee Barth teg teg Mame Mbaye. <laughs> ah léegi loolu lu ci am. <laughs> am am da ngay gis ne. Ah. Euh, moom moo la gën a présent ci terrain bi. moom am na appareil am na ay coalition yu nekk ci ginnaawam. Ah. te mbay Mbaye pratiquement boo est-ce qu'il sax moom. non boo boo li nga xalaat nii. Hmm? da ngay dem nga laaj ko ñi mu ànd. non non mais mais mais laa wax sax yow. non non moom laa lay wax c'est que à dire man dépassé naa fu may tontu ay problème personnel mhm. c'est-à-dire loolu aussi il ngeen nangul ko nit ki. Bart tiitalu la. nan la may tiitale. <laughs> Bart dafa dafa dafa garaaw de. <laughs> est-ce que est-ce que du est-ce que du maa ko tiital bon. de toute façon c'est pas un mhm. problème. li am li am li am njëriñ. Mhm. mooy nee naa la du Bart rek. tout ce qui est opposition bokk ci coalition boobu mu nekk Ziguinchor rek mu nekk feneen ñooñu dañuy ut ay mairie pour xeex malheureusement pour eux ni principe bu république tëddee Macky moo fiy nekkaat ñaari at ak genn wàll ba ñetti at. donc mënooy ut mairie pour ñaari at ak ñetti at yooyu yow sa kaw bopp askan nga bëgg a taxaw doo leen defal dara di utiliser mairie bi pour di xeex mais loolu quand yow bu fekkee nangu ko ko nañ may yeneen sénégalais yu ñuy seetaan ñoom ñu ni nangu wuñ ko wala buñ demee voté ji donc mm. loolu mooy premier candidat mais ci wet googu ci wet googu balaa nga dugg ci feneen fi tamit am na ñoo xam ne mooy dañoo jàpp ne comme yow ak ñeneen dañ leen jox maire bi ñoom jébbal ko Macky Sall déedéet noonu lañ ko gisee parce que yéen da ngeen da ngeen jege Macky mais déedéet maa jege Macky bu ñëwee di ko xeexee yéen da ngeen koy jébbal Macky xam nga Abdou Khadir jegewul Macky wala mm-hmm. Abdou Khader dina am yéene biir plateau Moustapha Mbeng am yéene biir Grand Yoff. mais mais mais ah, yow. yow direct non bu dégloo woon tul doo doo doo. comprendre vas-y boo ma dégloo dinaa la expliquer. xam nga mhm. boo nee Abdou Khader buy xëccoo maireem commune plateau ku ndenk ci membre gouvernement bi moo fa nekk Abdou Khader wax la nii laay doxale biir plateau. Mhm. nii laa bëgg doxale mais man sama gox moo ma sa moo ma yitteel kooku dafa dem jébbal maireem te kooku amoon possibilité. ànd ak Macky ba ba ca ca ca ca ca cappaandaw ga opposition di ko jéem a jël pour investir ko mu ni moom goxam la bëgg a liggéey et que duggul ci ay clivage politique ak leneen plateau moo ko ñor nga dem Grand Yoff kii àndoon ak ñoom xam ni que lii ñuy def nii du luy euh, génne Grand Yoff ci ay jafe-jafe mu créé mu dem dugg ci cadre boo xam ne da koy permettre mu liggéey nga ni ñooñu dañuy dem gagner seen mairie dem jébbal ko ko pour lan mais nëbbatuwuñu nee nañ xeexuñu kenn ñoom seen gox moo leen tax a jóg keneen ku wax leneen sa xalaat nga wax ku nekk am na xalaat am na droit wax xalaatam. non mais yow lañu wax yow laa wax ko yow yow yaa soxla dakaar yow bu ñu la joxee Dakar da nga koy jébbal Macky. mais mais lu tax nga xalaat ni que man man man damaa mës a nëbb ni ci ginnaaw Macky Sall laa bu ñu ma jébbalee dakaar 50 pour cent li may xalaat dama gëm ni que bu ci jàppee ci laay mën a def programme bi ma bëgg. parce que mënoo xuloog moom ba pare. Mhm. di di di di mën a liggéey am na ñu fi nekkoon mais lii fii waaj a jógee nii daf ko contrôle lan lañ fi def dara léegi nga bëgg man ma dem jëli Dakar après pour lu neex ay extrémistes ma naan noo damay ja la lawu maak moom. Mhm. ci gannaawam laa topp tey ci gannaawam laay topp suba. lii may ut nii bu ma ko amee dinaa dem toog moom ci kàttanu yàlla ne ko. seetal nan nga ma ci mën a jàppale pour programme bi ñu def nga xam ne ci sa xalaat lañ ko jële ñu appliqué ko. beneen pôle bi waaw waaw beneen pôle bi mooy deuxième candidat deuxième yeneen candidat yi may wax. Mhm. mooy est que mooy ñi bokk ci nguur gi. nga xam ni xeexuñu lu dul pour maintenir seen i position ci gouvernement wala maintenir seen i position ci biir ay agence ñooñu dañoo jàpp ni que. donc seen intérêt moo leen tax a jóg. mais bu seen intérêt du yoroon nañ ay mairie lii ñuy digaate lii yëpp lu tax defuñu ko woon. te ñu am juróom-ñaari at yéen bu ngeen nangoo yéen bañ a gis mais bàyyi leen sénégalais yi ñu toog yow nga dëkk ci commune sept nga yor mairie bi mhm. ci lan ngay warante ma def terrain basket bi defuma ko te mu leer ñëpp ni que li ngay terrain bi ngay wax ci biir projet état la dugge autoroute yi nii tobogan yi romb commune yi mais loolu ñun ñëpp xam nañ ne état bi la. Oh, lool lool du projet état. Mhm. ñu ñëpp ñu gis ne que AGEROUTE moo nekkoon maître d'œuvre bi ñu ñëpp ñu gis ne que entreprise yi ko doon def def nañ ko commune boobu def ko beneen commune ñu ñëpp ñu comprendre ni que RSE la après yow ci loolu ngay langaamu ca nga yor mairie sept ans après nga bëgg a yóotu leneen nañ bàyyi naxante yi cest am na ñaari mbir yoo xam ni un discours ex wax ju ñaaw joxul nit nax nit ñi joxul nit ndax nit ñi weesuwul nga commencé woy man maay candidat wu mbooloo mi man man ñi ñoo ma samp dakaar soxlawul loolu mënuñu am ay candidature communautaire wax yooyu day yàq. loolu mooy da nga def allusion ak euh, Diouf Sarr foofu. defuma allusion kenn man li am laa lay wax. Mhm. ku ci gis ku gis ni que yow la ñuy waxal yow la ñuy waxal non ñi bañ Macky Sall nañ ñëw dajaloo fi nit ñi méngalewuñu ay élection locale ak ah, nit. wala président wala régime nit ñi seen gox lañ bëgg a sempi